Euh, le pôle d'avocat boussman Sonko maître la fois que ki nga xam que moo maître Tall ñi won fa nga xam itam Cour suprême ñi daal di déposé boobu dañ nga xam que modi rabat d'arrêt alors Arfan peut-être euh, ce qui a souligné moy euh, fum toll ni li nga xam nekk moo de rabat nak Karim Wade demoon na fa Khalifa Sall dem na fa gis na li nga xam nekk moo euh, mu jël tif bi exactement mais Sénégal li ñi laaj moy rabat d'arrêt bi sunko amalé est-ce que ñi ko àtte woon ñoom ki nga xam modi justement di justement Ari Siraba ak li nga xam que moo euh, euh, juge yi ñoom ñooy taxawaat euh, si que xam nek modi di rabat d'arrêt bi ak rabat d'arrêt suy am est-ce que daal di war mën procès. voilà la dangerosité bo xamantene lu gën a jaaxal yëf yi. Hmm. parce que bo ko boo xasee ba siégé bu ñu faire rabat d'arrêt parce que la cour suprême il y a que quatre chambres là-bas. Hmm. y a quatre chambres qui se trouvent au niveau de la cour suprême quatre chambres ñoo fa nekk maintenant dañ la bu ñu defee rabat d'arrêt yéen ñi siégé woon même maanaam ñu xam dossier bi ñu xam dossier bi ñoom duñ fa nekkati du ñu siégé waat maanaam ñoo xamante ne xam nañu dossier bi ñoom duñ fa nekkaat mm. rabat loolu la wax mooy maanaam ñu xam dossier bi ñoom duñ fa nekkaat ñeneen ñooy ñëw cette ces chambres là nee naa la quatre chambres ñoo nekk au niveau de la cour suprême maintenant chambre yooyu ñoom ñooy xool ñom ñoy xol par rapport ak Seraba rabat là mm. maintenant ñu ne la les Ali sireba ñom ñom Abdoulaye Ndiaye ñoom ñoo xamante ne ñoom nyom nyom foofu ñoom ñoo nyom départ bi ñom duñu fa nekkati ñoom naanaam du ñu ci Seraba rabat voilà la loi lu mu wax mm. voilà mota tax ma ne la encore métitel parce que ko xamantene mom jugé na ba pare ñu la rabat d'arrêt bu ñëwee mom koku du fa bokkaat ñeneen ñoy ñëw parce que quatre chambres là, ñoom ñuy étudié le dossier bi de di rabat d'arrêt pour Khol. maintenant moi tax peut-être dans ce cas bi la loi sera dit Hama nga toog ne la man li ci cour suprême man je ne trouve je n'approuve pas la décision de casser la décision du juge de Ziguinchor ba pareil, renvoyer encore dans un autre tribunal hors classe de Dakar je ne vois je ne voyais pas la pertinence hmm. wax na la ko moi tu ma la cour suprême le mu def nii man ànduma ci. donte donte amnañu droit bobu mais la cour suprême. lu ñu dagg ñu né mhm. cour suprême. Euh, su nekkee matière électorale la xam naa nañ si ñëw si kanam tuuti par rapport ak juriste yu ko avancé que ni. Mhm. am woon droit renvoyer ko si beneen li nga xam ne que moo di euh, euh, li nga xam ne que moo di tribunal. parce que dafa am benn temps boo xam ni tam da ko may candidat yi et que temps boobu noonu même mel Cour suprême moo ko fi seen daal di décider exactement dem naa sax ba si ba fa aussi si yooyu bay ñu ne.

donc cour suprême ba yëf dang-dang depuis Ziguinchor ñi ñi di dang-dang di yëg ko wacc cour suprême cour suprême waru ko dans un autre tribunal waru ko renvoyer hmm. dafa doon mën na ñaari ñaari feño suprême lu mu waroon def soit day casser décision bi ba pare até ko mom mom ci bopam cour suprême attee yëf non mën mën na casser la décision ba pare attee ko moom ci boppam moom cour suprême mm. wa ila mu mu mu mu mu mu ne moom moom moom day rejeter day rejeter le pourvoi en cassation mën na ko rejeter mm. mën na jàpp ni que le juge Sabassi fay avait largement raison sur les faits mm. mu ne avocat agent judiciaire de l'État man je rejette la le pourvoi parce que man gisuma fi lu incohérent par hmm. rapport le juge de Ziguinchor décision voilà les deux faits yo xamantene ñom ñoo le cour suprême ci yoy la waroon addu hmm. moo tax man daf ma jaaxal lool daf ma suprême casser la décision ba pare renvoyer encore ci une autre instance mais dama ne li c'est quoi ça au final je ci plateau bi ne la man man jeune jeune ba est-ce que dans nga japp ni Cour suprême dafa daw ay responsabilité hmm. effectivement. Hmm. il a fui. non mais effectivement dafa daw c'est une responsabilité code électoral la en matière électorale procédure d'urgence Ousmane Sonko avocat yi bañ nañ sa bañ procédure d'urgence lañu déclarer. Hmm li moom euh, mo moo lii moo waral encore une fois xama nga yóbboo nañu un référé liberté gis nga cour suprême lum ci def. Hmm. mu ñëwaat ci ce dossier mu defaat la même chose ci lo xamanteni cour suprême ñi bari ñi ñëpp tok di la xaar noy casser décision d'un juge ba paré delloo ko encore ci un autre juge ci matière électorale ñu ne la procédure d'urgence la ñun ñi yo la xaar yow cour suprême yow kessé la xaar bañ lañu sax donte du dëgg. mais bañ nañu ba la DGIE ne sukkandikoo ci kii boo bu ne ba mu ne boo gisee muy bañal jox Ousmane Sonko ses fils de pare parce que dafa doon dafa doon xaar décision cour suprême yow cour suprême ñëpp doon xaar yow yow nga joxe donc un verdict final wala nga gisee atte yëf yi nga atte yëf yi mais yow nga ne ñoo sénégalais yi non je ne mais tamit je baye bàyyi yi dama koy casser ba renvoyer ko ci benen tribunal pour moy manam une procédure à zéro la ci cour suprême non à attends moo tax que ne la ñu comprendre ba pare yalla lu muy def yalla lu muy def une décision en tant que cour suprême avec quatre signatures un nombre pair ñu ne la lolu musul il faut que mu un nombre impair yow nga ba pare manqué benn signature nga jël le risque. de donner la décision finale. c'est de y a xam nga xam nga xam nga ay avocat gis naa maître Larifou donc le Comorien gis naa il y a un avocat de Ousmane Sonko boo xamante day faral di euh, la procédure est nulle Moi Juan Branco. Juan Branco xam parfois il a raison sur les faits nañu waxante dëgg day day day day am deug parfois ci suñu justice non si nañu waxante deug quand même Juan Branco parfois day am deug ci suñu justice parfois la wax mm. day am deug ci suñu justice moy manam day faral di ne la tous les procédures menées contre Ousmane Sonko sont nulles ñom ils respectent aucune procédure normale parfois day am dëgg parfois day am deug nañ ko accepter mm. c'est ça xam nga man d'accord na ñu waxante deug xam nga sànq taxaw nee naa la fii la juge Aïssata Ba dafa def une faute grave hmm. professionnelle hmm. xam nga wax naa ko hmm. am na ñoo xamante ne du ñu wax loolu parce que ñoom dañoo bëgg a coûte que coûte lu arrangé Ousmane Sonko. mais man damay wax bu arrangé Ousmane Sonko da ngay wax damay wax bu arrangé Ousmane Sonko damay wax. nee naa la euh, Juan Branco parfois day am dëgg ci suñu justice nu muy doxee mais imaginez cette procédure là de la Cour suprême imaginez cette procédure là ba ñuy déceler une vis ba ñu attaqué ko comme euh, euh, comme adresse euh, rabat d'arrêt ba ñu attaqué l'EN en rabat d'arrêt lii mooy encore une fois la procédure est nulle. mais tant d'expérience bi Ali ba am étant d'autres. ouais mais mais xama yo da nga l'expérience lolu effectivement. Hmm. lolu mo ñu jaxal avec l'expérience qu'il a Ali Sireba bientôt il va aller en retraite il a de l'expérience. magistrat quel xarañ la kenn mais au coin c'est un magistrat magistrat magistrat voilà maintenant comment il a fait pour tomber dans ce piège voilà man d'où piège ça comment il a fait pour tomber dans cette euh, euh, cette erreur hmm. a joxe une décision de justice beaucoup de suprême il a manqué une signature te ñu là nous ñu nombre nombre impair la a nga une décision de justice ba paré mu manqué de signature nga jël ce risque là. de publier la chose. non mais attends <laughs> quand même aujourd'hui est-ce que joxul deug Juan Branco muy faral la procédure est nulle chaque fois nous avons jël ay procédure ci yenn sen yama né nous manam duñu adresse, respecter euh, euh, la voie normale Nous respecter le lu mais est-ce que joxul dëgg ñooñu. Hmm est-ce que Dieu voulait encore dégueuler le juge de Ziganchor est-ce que Dieu voulait dégueuler le juge de Ziganchor ok euh, autant de questions yoo xam da koy non mais autant de questions il xamante de dañ koy poser dañ koy poser c'est clair. dañ koy poser. Hmm. tey ce rabat d'arrêt là nous, ñooy nous siège.

Cour suprême dafa am li nga xam ne que moo di ay chambre chambre yi toll nañ si ñaata peut-être euh, beneen chambre mooy ñëw daal di koy atte il y a quatre chambres au niveau de la Cour suprême. mooy quatre chambres ñoo nekk Cour suprême. maintenant quatre chambres yi nii rabat d'arrêt bi. Hmm. ñoom ñooy toog seen biir. Hmm. xool ndax yëf yi ànd na mooy maanaam lu waraloon rabat bi lu ak yëpp càmbar xam dossier bi nee naa la ñu xamoon dossier bi ñoom duñ ci laalee. allés ci dossier bi. Hmm. ñeneen ñooy ñëw siéger ñooy ci chambre 4 chambre quatre chambre cour suprême donc ils mbir ndax jar wala lu wax ci rabat d'arrêt ndax am ba am am na wala amul. Hmm. moo tax voilà la dangerosité pour nous doon ta ni que Ousmane Sonko jeexal na ci yëf waaw oui non tant que nous respectons la procédure normale. Hmm. du

nara wax te te te basé wu ci loi. da ngay wax ni que yëf yi bu ko jaaralewulee fu ñu war a jaar yëf yi du jeex ate bi du jeex dama lay wax lu am. Hmm. fokk ñu respecter les procédures la procédure normale tant que respecté wuñu ko ces dossier là duñu jeex ba même jusqu'au delà de 2024 du hmm. jeex du jeex. parce que ñëpp dañ doon xaar mu jeex yëf yi jeex au niveau de la cour suprême foofu lañ ko doon xaaree mu jeex fofu lañ ko doon mais comme jeexul comme la procédure normale continuer di hmm. parce que si une signature manque ñoom avocats yi ñuy que donc bu fekkee ñoom dañuy am benn voie de contournement loolu yoon moo leen ko may. aujourd'hui ngeen rabat là. Hmm. bu la cour suprême dafa rendre la décision sans vice procédural moy manam du ci até bi du am défaut. Hmm. donc dans ce cas ben raba daré du am. ben rabat du am nañu waxante deug hmm. ñun dañoo jang droit comme ñom bu féké dañoo rendre cette décision finale. mais dafa mel ni ñu ne il y a la main de Dieu sur l'affaire oui ça peut être la main de de euh, euh, Dieu. ñom euh, non ah, ah, c'est à rappeler aussi le juge Sabassy euh dafa annuler mon radiation parce que ñom euh, suivre ñu exactement la publication bu radiation bu Ousmane Sonko manam affichage yi si euh, publicité bi nga ju bëri si télé bi lu nga ko yégué exactement euh mu nekkoon erreur bo xam ñom defo nañ ko. mais ci euh, jàll ci leneen ci Cour suprême ben erreur tamit ñëwaat exactement. motax tax tout à l'heure mu laaj la exactement au delà euh jëm ci li nga xam nek modi aspect yooyu yëpp est ce que tamit franchement mbiru Ousmane Sonko doy na war quand même. sëñ bi. doy na war de xam nga sank gis na la nga ne la mère de Dieu. Hmm mais yalla la ouais ko ouais là d'accord dama ne. yalla hmm. lan lay até du deug hmm. yalla dëgg lay atte na du dëgg lay atte yàlla moo que ñan ñoy nek juge ñan ñoy n'est ay représentant ci kaw souf du yalla moque koy à hmm. ba paré leen até leen ci deug parce que lo até fille que ko até wat du yalla lool la wax ci alcorane

waruloon par parloo waruloon am benn erreur na se ne serait-ce que bu ndaw. donc par parloo na ko tuddee ak yàkkamti atee ko bokk na ci. ak yàkkamti yóbbu ko yàkkamti atee ko bokk na ci. ak yàkkamti yóbbu ko parce que procédure d'urgence la woon. Hmm. gis nga ci yàkkamti atee ko man d'accord naa ci. mais ginnaaw ñu teg ko ci ci yoon. ci sarti hmm. teg ko ci loi. loi lii nee na ñuy siéger cinq la ñu nañu respecter cinq yi je crois que respecter nañu cinq yi. mais xam nga fan la ñuy jàddee koñ. Mm. wala fan la ñuy jàddee yoon ngeen jéggal ma ci kàddu gi fan la ñuy defee erreur bi. Mm. mooy maanaam warul ñu woon jël le risque de rendre un verdict avec manquement de signature loolu du yoon. loolu da ngay da nga até lu méngoo ak yoon mais du yoon ñuróow ko da nga até lu ñuróo mais du yoon mbaa xam comprendre nga li may waxee parfois ñu até lu méngoo droit mais en fait du droit mm au Sénégal parfois ces arts de de de la pratique ces arts de pratique dañuy a lu droit mais en réalité de droit. Hmm. du droit pourtant ñoom ñoo ñuy le droit c'est am des magistrats des professeurs de droit de l'ICAD yoo xamante ñun des jaar fa ci ces professeurs là mais gis nga fii le cas de de Ismaël Madior hmm. un professeur émérite agrégé ñëpp jaar ci moom mais parfois bu ñu jël ay ndombal mais seen lu ñuy ak doon c'est opposé moo tax la parfois ñoom dañuy def lu ñuroo ak droit hmm. mais en réalité de droit hmm. alors la cour suprême lu mu rendre dafa ñuroo ak droit mais en réalité ce pas un droit hmm. parce que ñoom ñoo ñuy jàngale ñoom ñoo des ñoom xamal parfois lan lay wax yon lan la wax donc yon waxul ni que da ngay rendre verdict bo xamantene ne day manquer signature mu leer na ni que ñe buñu constater les faits ki ce verdict là meun nañ la attaquer ci un rabat d'arrêt hmm. tu ose le faire quand même ñu attaquer la dans un rabat d'arrêt bo xamantene ne désormais ñu siège on duñ fa nekkat hmm. parce que parce que cour suprême euh, quatre chambres ñoo fa nek hmm. buñu ñu ki yefi fofu ñom quatre chambres yoy. ñoom ñooy xool affaire yi ndax avons na lu ci ci ci nous mm. wala tamit ñoom euh, euh, nañu selon euh, la loi. ñoom loolu yëpp dañ koy càmbar. dañ alors enfin exactement si la réaction yenn